mais sénégalaises yi amal fële ca Casamance. météo ak Oumy Samb maa ngi lay nuyu di la ziar mbaa nelaw nga bu baax. bu baax a baax. macha allah <laughs> jërëjëf. bonjour euh, à toute la team et puis maa ngi nuyu euh, mbokku téléspectateurs yi bu baax a baax donc on y va pour la météo du jour euh, un temps boo xamante ni moom c'est fi mu toll nii température yi ñu ngi augmenté waat légèrement. de 15 degrés la ñuy dooree tey ci Ziguinchor 16 ci Kolda. 17 ci Sédhiou Kaffrine Diourbel Thiès 19 degrés la ñuy euh, enregistré ci Dakar ainsi que Matam et puis 23 degrés la maximale ci Kédougou euh, dans la matinée ànd ak ay niir. Euh, euh, concentré sur le sud euh, du pays bu ñu demee ci digg bëccëg bi ci li ñuy gis ni que niir yooyu ñu ñuy teew ba tey ci asamaan si sur la totalité du pays d'ailleurs ci gox yëpp dinañ ko fa mën a nemmeeku et puis les températures tamit ñu ngi haussé waat ci après-midi bi bu ñu jëlee penku réew mi ak sud bi ñu ngi diggante 37 degrés et puis 38 Euh, fu mel ni Matam wala Tambacounda ou Kédougou et puis sur le l'ouest ci euh, soowu réew mi plutôt ñu ngi diggante 26 degrés à Dakar température bi gën a néew doole et puis 35 degrés fu mel ni Diourbel wala Louga Euh, et puis Kaolack Kaffrine foofu ñu ngi fay euh, enregistré 34 degrés gis-gis bi leer na amul benn jafe-jafe fi mu toll nii y a pas de vent euh, au loin ngelawul Euh, moo tax euh, may wax temps stable aujourd'hui et puis température assez clémente euh, ci booru géej gi 26 ci Dakar 29 ci Thiès 28 ci Saint-Louis on ne dépasse pas les 30 degrés pour aujourd'hui lépp dal na amul benn perturbation ñu xool marée yi donc rapidement si l'écran bu donc 11h05 ainsi que 23 heures 22 minutes dinañ am marée également puis marée basse bi moom ce sera aux alentours de 16 heures 50 minutes pour l'heure de pêche rek ñu jàpp diggante 15 euh, heures jëm 17 heures activité très élevée ce matin donc toujours de l'espoir lañ ci am yaakaar et puis euh, les euh, pêcheurs artisanaux le gilet de sauvetage toujours boo leen di jël euh, yoonu géej gi rek moom la ñuy fagaroo toujours Euh, ñu bañ ko fàtte kaaraange mooy kaaraange gi. pour le soleil je pense que mu ngi nii di préparé w pour 5 7h40 voilà ji génn nañ ci 30 yi ñu ngi ci 40 mm. léegi. 19h03 incha allah mu euh, daal di làquwaat ba ëllëg soxna Natta. merci Oumy Samb ba ci kanam. ba ci kanam ci ñaareelu pàcc bi. Mhm, ñu bàyyi la nga dem xamp mburu bi. du ma euh, ko xàmp tuuti. <laughs> du doo ko xàmp doo def benn xàmp daal. <laughs> je mange plus bàyyi naa ah bon <laughs> ah, dinaa ko vérifier à tout à l'heure Oumy merci beaucoup aywa léegi dañuy euh, jàll ci beneen rubrique muy un jour une actu andi ceeg Marcel Farba Maroon.